kenn ku ci nekk turam ak santam di rafetlu invitation bi parce que xawoon na jàmp trop euh, bi ngeen ko jotee ak léegi donc loolu nag li ko waral mooy dañu teeloon a jot information yi euh, parce que li nga xamante ni moom moo ñu fi tax a teew tey ci wàllu liggéey. Euh, département bi yëpp ñoom ñoo ko war a def maanaam dañu war a samp benn comité boo xamante ne nii liggéeyam mooy euh, di saytu ak di jàppale xale yi euh, comité moom nag dafa am comité bu ko jiitu muy comité départemental bi boobu samp nañ ko ba pare douze communes yi ci département bi kenn ku ci nek wara samp sa comité donc tay jii nak lool moo ñu fi dajale pour ñu samp comité boobu ah buñ ko mënee aussi dañ koy santé fédération du Baol parce que lepp lo xamante ne ni mooy jëm ci walu organisation comité bi ñom ñoo ko jël en charge donc kon ñu ngi leen di sant fédération du Baol ak waa AEMO ak action sociale bi nga xam Jean leen représenté di beral aussi jant euh, euh, madame le préfet parce que wax dëgg yàlla xat nañ programme yi bëri na mais biñ ko woowee pour mu ñëw ubbil ñu séance bi dafa bàyyi programme yëpp ñëw donc comme niñ ko daan defee aussi waaw ah, bëggoon nañ bala ñuy commencé rek euh, kilifa yi kenn ci ñoom def ñaan def ñaan pour que li nga xamante ni dañ ciy dugg te ñu am ci yéene mu bokk ci li nga xamante ni mën na jëmale kanam dëkk bi parce que xale mooy yore ëllëg dëkk bi te boo ko préparé préparé nga avenir dëkk bi

ñëpp ñi fi teew ñëpp kenn ku ci nekk présenté wu euh, bu ñu defee présentation ba pare ñu présenté liggéey bi ni mu nar a doxe donc bu ñu defee présentation liggéey bi ni mu nar a doxe ba pare nag ñu soor a jug ci présentation donc euh, kon yaakaar naa mën nañ jox sëñ Daawdu kàddu yi nga defal ñu ñaan bala ñu liggéey bi fësal ko yéene tàbbi ci liggéey bi ci bismillaahi rahim yàggale ci alhamdulilah rabbil alamin yal na ko yàlla jàpp la noonu ñu ko bëgg euh, mbooloom jullit nag moom ci yàlla santaan rek duwaawu silaawul moom ñaan mooy ngànnaayal jullit yàlla ne mere na nag jaam bi nga xam ne bëgg na te du ko ñaan duwaawu yantaw mi ma nasala wa mi man lam yunsil kon na luy ñaan gannaaw faatiha fàllaxe ak naas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 بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق وما خلق مثل عيسى وقبل امتلئ من في الحق مثل عيسى عيسى اسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس حق الناس الذي يوسوس صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الم نشر لك صدرك ولهنا لك ساقك قال سهرك ورفعنا لك سكرك فان نصرات نعم، المتعفن صراط الذين خير من العباد آمين آه. asalaamaaleykum euh, maa ngi leen di nuyu si seen tur seen sant di rafetlu seen teewaay comme ni ko maire waxee sànq euh, xat-xat yi bëri na waaye nag euh, dañuy ñëw rek def farata donc comme ni mu ko waxee sànq tamit état bi dafa tegal benn stratégie stratégie boo xamante ni day sàmm ak ak yelleefu xale ginnaaw bu mu tegee stratégie boobu nag mu santoon préfet département bu nekk mu sant comité comité boo xamante ni kilifa dëkk yi acteur bu dëkk yi chef de service yeeg yëpp yi euh, yëngu ci mbirum ak ak yelleefu xale mën a dajale pour def ay action yoo xamante ni day protéger xale yi contre les violences parce que comme ni ñu ko waxee am na ay xale yoo xamante ni dañuy souffrir nekk victime ci ay violences état bi nag sant santoon ñu loolu santoon ñu aussi tamit au niveau de chaque commune ñu sant fa ay comité communal yu ndaw comme ça ci au niveau de commune yooyu noonu kilifa yi fa nekk yëpp mën a bokk ci commune boobu ci comité boobu pour euh, action yoy pour euh, protection de l'enfance légui nak euh, mettre nañ en place 11 comités communaux yep de 11 autres communes yi arrondissement yi totalisé bu Bambey rek mo ci desoon motax nak mo moo waral suñu téway bi tay légui nak bala ñuy guddal wax ji ma ngi de manière solennelle déclarer cet atelier ouvert merci. monsieur maa maa ngi tudd Gana Mbaye nekk maire commune bu Bambey kon monsieur Diakhaté man maa chef de service AMO bu en même temps point focal institutionnel Sénégal man maay Lamine Ndiaye nekk agent fédération du Bawol nekk représentant point focal société civile Khalifa Mbodj deuxième adjoint au maire de Bambey sous-préfet du département de Bangui. Jean-Pierre Emmanuel Sarr, départemental de l'action sociale de Bangui. Aladji Mbangaba, chef de quartier de l'Ouest. Aladji Mbagnik chef de quartier de l'Ouest. Aladji Lamine chef de quartier Waxal Diam Nord. Elhadj Modioub chef de quartier Léona Nord. Serigne Daouda Faye, délégué de quartier Kër Sakoura Badiane. El délégué de quartier Deweer Centre. Aladji Alagnan, président départemental des communicateurs traditionnels. Racine Bach, président de la commission des finances et du patrimoine du conseil Bambé, conseil municipal. Badara conseil municipal, président de la commission. Jeannette Esco, maire de Bambé. Madame Sène, déléguée de quartier fiscal. Madame Sène, déléguée de quartier enfants. mu jóg taxaw quoi mu jóg taxaw. waaw non. Mamadou euh, Mokhtar représentant collectivité Dara. de président de CODEC Aw Diagne représentant délégué de quartier Ndoxal Jàmm Sud. daa waroon tey délégué de quartier Léona Sud Adja Aïda Diouf conseillère familiale de la petite enfance bàjjenu gox Croix-Rouge tàkku jaar Macron au centre de santé bàjjenu gox Léona Sud président Fátima Tatar, Junior Adjunto Omel. Ya. soxna si. Alima Mbaye conseil. Gitu? Parle fort kesannya item penjara waktu bisa moom moo ko mel doon mbir bu efficace ci mbir loolu mu jël monsieur Diakhaté mi nga chef de service bu def ko point focal gestion léegi dafa am beneen point focal bi point focal société civile kooku mooy la fédération moom mu xam ne monsieur le maire li processus la boo xam dafa tàmbalee ca kaw au niveau départemental dem ci commune yi mais suñ paree dafay continuer li muy continuer mooy ni mu amee au niveau départemental am au niveau de chaque commune chaque commune c'est le maire qui dirige mooy mooy mooy président comité communal bi mais aussi day dem ba ci quartier yi maanaam suñ paree fii dafa amaat beneen activité boo xam ne nii chaque chef de quartier daf koy taxawal ci quartier muy comité de quartier yi donc moo tax surtout chef de quartier war a mën a suivre le processus nga xam ne bu ñu paree ñoom aussi dañ ko mën a continuer ci seen seen gox-goxaan yi fédération du bal ba léegi incha allah day continuer di accompagner monsieur le préfet ci activité yooyu ak monsieur le maire ak les chefs de quartier ci activités yooyu. donc ñoo ngi leen sant ngeen ñu teewlu bu baax xam ne liggéey bu sérieux la liggéey boo xam ne nii parce que xale bi nga xam ne day comme ni ko monsieur le maire waxee xale bi soog a juddu ah bokkut ak mag mi nga xam ne pare na xale bi soog a juddu. da koy accompagner ngi mel genre garab booy jëmbal rek loo bëgg ci moom di ko mën am mais mag moo xam ne ba dem na ba daanaka am na ñeent fukkat juróom fukkat daanaka mënatoo ci moom dara donc nañ góorgóorlu ci xale vraiment pour am vraiment des citoyens sant baax gërëm ñëpp rek euh, AMO au niveau du département monsieur leen di gërëm di leen sant. di lu seen teewaay vraiment man li ñu bëggoon tàmbalee yëpp pratiquement préfet wax na ak monsieur le wax na ko moom ak Lamine ñëpp ñoom ñëpp ñëw noonu ci processus bu nga xam ni moo waral installation bi donc da mbir mu nga xam ni li ñuy installé nii au niveau communal du du Bambey kese lay doon pratiquement à travers le Sénégal installé ñu euh, euh, département yu bari installé nañ seen comité départemental peut-être fi yéex na fi démarré mais yalla def na nag bi ko installé euh, depuis le mois de janvier passé yalla def na aussi tamit vraiment liguey bi mi ngi dox bobu léegi bi ñu jógee au niveau départemental dem noonu au niveau arrondissement nga xamni fofu foofu lañ doon installé les comités de suivi comité de suivi yop def nañ ko Lambaye Baba Garage ak Ngoy donc li déssone moy comité communautaire, yi bu ñu jógee si comité communaux ci la dem comme le minimum que mu légui souligné léegi les de quartier ñoo xamné tamit day bu boba place bi par exemple tey jii monsieur le maire tok ni ki le délégué de quartier en personne mom moy présider comité comité comité de quartier yu demee non wala au niveau même village ce sera le chef de village pour dire que ni processus la bu nga xam ne bàyyiwul kenn stratégie bi dañ ko tëral pour vraiment population bi yëpp jàpp ci mbirum protection xale yi en gros loolu laa bëggoon démarrer pour dire que ni tamit bu ñu ñëwee si ci présentation yi dina leen gën a expliquer walla programme ki euh, stratégie nationale bi ak par exemple léegi tamit euh, plan d'action bi nga xam ne moom lañ defoon au niveau départemental plan d'action boobu booy xool activité yi ñuy def yëpp programme woon nañ ko déjà si plan pour dire que ni vraiment pour l'instant euh, mbir mi mi ngi dox mi ngi dox daal ni mu waree dox

donc jàppale xale yi ku koy def tamit sa bopp ngay jàppale parce que ñoom ñoo war a euh, ëllëg si biir euh, yare réew mi donc euh, loolu laa bëggoon tàmbali monsieur le maa ngi tudd Gana Mbaye nekk maire commune bu Bambey. man monsieur Diakhaté laa man maa chef de service AMO bu Bambey en même temps point focal institutionnel CDP. man maay Lamine Ndiaye nekk agent fédération du Bawol. nekk représentant point focal société civile. Khalifa deuxième adjoint au maire de Bambey. Nafissatou euh, Seydi adjoint au préfet du département de Bambey. Jean-Pierre Emmanuel Sa, départemental de l'action sociale de Bambey. Allah Mballa chef de quartier de Ouest. Alhaji Mbagnick chef de. conseil départemental moo xam ne moom direction de léegi du ministère de la santé. Ratio compass angular ratio is double mapped to a communal test. With ratio of the more summation and left of the world communal test. damay gis rek ñu ne ñu def nii def nii def naa mais du ma xam avec quel moyen lañ koy defee

parce que occasion la monsieur le maire pour ñu. leere ah li ma ci wax rek mooy point bi ma ci gën a impo bi ma ci gën a intéressé mooy li ñuy wax engagement parce que yu mel nii def liggéey boo xam ne bii am na solo trop mais engagement moo ci gën a am importance. nekk ni ayomo nga xam ne moom liggéeyam lépp mooy jàppale xale yi yiir xale yi dimbale leen kooku impact bu am solo la monsieur le maire ma yaakaar ne nag. Eh, li ma wax am nañu ko rumandaat dañ lay sant ci synthèse bi nga def par rapport aux deux points ñu ci bari synthèse bi rek moo leen yóbbaale waaye dama dañ doon ñaan yu mel ni su amatee ñu du ñuy eh, invité nit ñi suñ mënoon a am document bi à ñu man koo saytu man koo càmbar nga xam ne bu ñuy def séance plénière bi après la présentation du plan d'action kenn ku ci ne mën ci apporter un plus loolu yaakaar anu naa ne monsieur le maire defe naa ne nekk na lu am solo bi ci des eh, moo xam nga da ngaa initié woon. ñoom ñoo jur yi ñu jugee ci xale aussi ñëw ci ci parents yi ci éducation c'est-à-dire donc API donc tey mënuñu leen a contourner par rapport ak protection de l'enfant te tey dafa nekk loo xam ne li bu ñu koy wax rek nit ñi dañuy xalaat xale yu ndaw yi nekk ci daara yi wala xale yu ndaw yi nga xam ne ñoom la ñuy te xale yu ndaw yooyu nekk ci daara yi mooy tey yéen ban solution ngeen ci mën a maanaam ci seen yalwaan bi ñuy taxawal ci parce que nga jàng ba dawar a def examen nga ñëw ñu ne ah, amoo kayitu juddu mënul doo def examen mais naa état tamit am na benn mesure bu woon ne xale yi mën nañ def examen en attendant xool ban solution lañ jur loolu yaakaar naa aussi war nañ ko mën a boole ci plan d'action bi xool aussi nan la ñuy dimbalee xale yooyu nga xam ne ñoo ngi jàng parce que loolu aussi ci protection enfance la ko je vous remercie yéen yooyu bi tamit mooy xale boo ko protéger il faut nga yee parent d'élève bi nga xam ne yor bi tamit il faut nga ko former ko xamal ko lan moy danger yi ko mën dal war a dal ndax xale mën am benn jafe-jafe bu tuuti fekk dina ci kanam. kon donc xale bu xamul danger yi ko dal kon donc loolu war nañu woo xale yi bu defee comité de quartier yi ñu woo leen xamal leen yi nga xam ne moo leen war a mën a protéger danger leen war a mën a dal nga xam ne bu ñu ko nëbbee mën na leen indi problème ëllëg seen seen seen ñu ko defee rek dina baax bu ñu proté bu ñu formé xale bi xamal ko li nga xam ne moom la war a xam yëpp euh, formé parent d'élève bi nga xam ne li mu war a xam yëpp bu ko defee dina. dina mën naa nekk koo xam ne nii yàlla mën naa def mën naa protéger wu loolu daal laa bëgg ngeen bàyyi ci xel bu ngeen koy def ngeen gis daara yi daal wax dëgg yàlla seeni problème moom dafa bari te xale rek la ñuy liggéey te ci xale yi moom dañ cee néew doole lool état bi moom xam naa war na leen ci mën a jàppale lu leen ci jàppale jël jërë ngeen jëf maa ngi nuyu ñëpp sa tur ak sa sant li jot ci bureau bi madame le préfet ak ci monsieur le maire ak son bureau municipal

suñ ay doom lan suñ ay jarbaat lan ñoo bokk Bambey ñoo bokk Sénégal eh, waaye boo xamante ni bu baax lay doon waaye bu fekkee da ko bëgg a xaar ci kaw rek mu génn daal di ñëw mu bëgg koo àtte amaana xale bi balaay agsi day yore bagage yoo xamante nii amaana état bi moom loola du ko soxla waaye loola dina ko rëcc ndax fekk na da koo fekkul ba ci suuf maanaam mën a xam loolu ànd ak loolu aar ko ba ba yéeg ak moom ba ci kaw kon loolu dañ ciy rafetlu lool état bi daa mel ni kon comprendre na li mu bëgg a def mooy aar xale mënu koo def tant que wàccul ba ci suuf fekk xale yi ci biir yi ànd ak ñoom ci fépp fu ñu jaar nag mu ànd ak ñoom ba protéger leen ba ñu yéeg ñu mën a nekk ay citoyen yoo xamante ni yu baax la ñu doon ci loolu itam ñuy demandé itam état bi. mën na dimbali ca atte ba ba xëy na dina am loo xam ne lii su ko xamee dina ci mën a sukkandiku ba bu demee police war ko faa la ci doon mooy affaire euh, xale yi diir aar daf ci am solo ndax ay mu am na loo xam ne lii wax nañu ko euh, ñu bari yëg nañ ko ndax bu yàlla dogalee nga dëkk ak xale mën naa am sax juruloo ko waaye nga gis ñi di ko def loo xam ne lii nag su dul noonu la ay mu jox nañu numéro boo xam ne war nañoo mën a téléphoner wax leen ko

ma yaakaar ni boo xam ne nii war nañoo def fii dès le plan d'action protection de l'enfance war nañu seet ay stratégie ay campagne de mobilisation ay sensibilisation yoo xam ne bu xale bi juddoo fi mu juddoo ci saa si mu am kayitu kayitu juddu bi moom kayitu juddu bi moom bu ko amul daa mel na moom xale bi tekki bu dara ndax doo mën a def examen doo mën a am carte d'identité doo doo bokk ci dara kon nag. situation aussi c'est en charge de l'État je fa déjà donc prenons un exemple aux États-Unis la meilleure la première chose bu ñuy jàngal xale est comment saisir la sécurité 911 premièrement 1 premièrement lu ndaw pour nous protéger donc il faut que l'État vite aussi dans ce sens là permettre des services de proximité Il faut ne bi à directement saisir malheureusement nous sommes en Afrique donc saisir un peu les autorités c'est

mu ne la ah yaay nangam ak nangam la papa nangam ak donc ya te loolu lépp li xew les cas de viol léegi yëpp yëpp ci biir kër gi lay xewé xale bi dina ko bëgg wax mais est-ce que dinañ ko may mu wax ko kon nañu defaraat éducation xam nañ la ñuy yarewaat xale yi di leen déglu bàyyi leen ñuy wax parce que dafa bokk ci seen droit dafa bokk ci seen convention yu ñu xale bi am libre expression di wax li nga xam ne moom moo ko du fenn. mais ni nga xam ne moo ko dal ci école bi mu ñëw ne la ah ñun de suñu madame nangam wala suñu monsieur nangam déglu ko ba xam seen monsieur c'est à tort ou à raison donc yooyu aussi ñu di ci xale bi di ko kii blocage xale bi laaj dara nga ne ko bàyyi mais xale bu lëf comme on dit noonu xale yi parce que awma leen lu ma leen jox moo tax ma gën lu ñu yow mais bul jël xale kenn sant la il faut wax dëgg la waxan dëgg àjjana suñu borom moo ko ko moom moo ñu moom fii pousu ne na nga nekk ci nga man ci nekk ak jàmm ak ngoon lu attan man ngoon mën nga bon mais beneen bi nga xam aussi posé nañu ko mooy la maison du premier accueil xam naa ni je pense monsieur le maire ah xam naa si yéen a mais une maison du premier accueil dafay nécessiter du personnel un fonctionnement des moyens de tous les jours je pense que li nga xam ne am na yaa ngi liggéey ak imam Diouf ñu koy gërëmaat mais pourquoi ne pas continuer maire xool ñu mën a waxtaanee ak imam Diouf

pour ñi amul jugement aussi je crois que foofu aussi état bi dafa wara am benen taxaway bu mu ci wara a taxaw man par exemple cette année euh biñu démé ba à la fin ñu né élèves yi amul extrait dañ leena wara bay ñu def examen ñu régulariser man personnellement je suis enseignant de formation mais man d'accord mu ci lool c'est-à-dire que nit ñi bu fekkente ne dañoo fauté il faut les sanctionner il faut les sanctionner ñu xamné li ñom ñoko def benen yoon ñu mëna am taxawaay ñi taxaw mais buñ leen ko gëna a yombaleel mais la tendance va continuer six ans dañ naan ah comme kat légui état mu ñuy may xalé bi bu ñëwee ba CM2 dinañ ko may mu def examen kon jarut ñu ci sot je pense que man il faut aller au-delà de ça li góor gi wax il faut aller au-delà de ça loolu dans la loi ñu constituer comme un délit parce que c'est un délit un jeune qui aujourd'hui peut devenir le président de la République du Sénégal. Un jeune qui demain peut na def concours pour mu def il faut que nous am extrêmes, mais mais jugement. par la négligence des parents, mais c'est un délit. mais nous avons un xamante ni niveau de responsabilité Moi, je suis nit sensibiliser pour inverser la tendance mais les décisions sont à moi, communauté. donc aussi je pense que. situation yu mel ni dinañu mën a servir bu ñu échanger ba jógee ci plan d'action bi parce que plan d'action bi yooyu yëpp dañ ko ci jël en charge ñu ko ci jëlee en charge à travers la commune nga xam ne day am synergie d'effort ñii daan liggéey fii ñii liggéey fii ñëpp ànd liggéeyandoo bu boobaa aussi plan d'action boobu dinañ mën problème yi nga xam ne daf ñoo jéggi mais nga xam ne au niveau de l'état lañ ko mën a régler am na ñoo xamante mën nañ def plaidoyer bi parce que am des élus à dimension nationale yi fi la présidente Fassel est là député députés ñu ngi fi ainsi Mais suite ainsi de suite ah. maire yi ñu ngi fi ñoo ni problème à un plus haut niveau pour que li nga xamante ni la ci war état def xeex bi nekk pour état def parce qu'il faut qu'il y ait une synergie combat bi ñuy mëne fii ak combat bi nga mené ne état daf koy sur le plan institutionnel pour que mu teg ay garde-fous yu tax parent yi ñu contraindre pour ñu mën a déclarer seen doom mais Abdou Ndiaye laa bi mais da ngay fii mu jaral la ngele bi un million un million koñ ba yëpp nga baas ko lu nekk nga def ko mais déclarer sa doom coûtewul lool te moo gën a yomb fa nga koy déclarer fa mu juddoo mairie ba nga koy déclarer xam naa ne nekkul ay kilomètres par rapport ak fa nga juddoo bu fekkee ci commune de Bambey donc loolu ni kau ko mën ini tuddee mooy voilà donc. Euh, euh, euh, donc di allah merci.